Nous avons convoqué une conférence de presse bi ci tour coalition de l'avenir coalition de l'avenir nak ci initiative pour une politique de développement le démon fi ci Ourossogui ci élection locale bu le 23 janvier 2022 conférence de presse bi ginaaw bu ñu élection bi jall ba ñu saytu ñu xam réellement lan mo lan mo xew ci locale dañoo gis de loo xamante ni lii nii fraude bu ñu organisé depuis processus électoral bi bu mu commencé tey su ngeen jëlee liste électorale Ourossogui bi di ngeen fekk foofu 1580 personnes koo xamante ni dëkkuñu ci Ourossogui te article L 34 bu code électoral daf ko interdire nit ñooñu fan la ñu jógee su ngeen gëstoo bu baax ci liste boobu nit ñi Touba la ñu jógee ñii Mbàkke ñii Dakar ñii pikin ñii Géejuwaay Yëmbal Thiès Diourbel Bambey Kaolack Linguère Ogo Thiambe ak village yu nekk ci gox-goxaat yu nekk ci alentour Ourossogui ginnaaw liste yooyu tamit nee nañu transfert d'électeurs massif la ñu constaté fii ci Ourossogui buñ ko transféré nit ñooñu tamit jaaruñu ci commission d'inscription normalement fan lañu jaar ñoom ñoo xam yan pexe lañu lal pexe yooyu tamit loxo nguur gi jogu si ngir ñu mun a intégrer ñooñu ci liste électorale bu Ourossogui loolu moo tax ñu jël yenn électeurs yu nekk ci gi ñu toll ci 900 électeurs ñii ñu sandi leen ci yeneen village yi pour tout simplement ñu bañ a voter gi te ñooñu xaymal leen autour de 900 personnes ñoo xamante ni fii nous donne doon chaque année mais eh, ren jii mënuñu fi voter lu parce que dañ leen dindi ci fichier électoral bi yóbbu leen ci yeneen ci yeneen dëkk. dañoo constaté tamit que commission électorale bu doon distribuer les cartes d'électeurs ah ñaari commission dès la ñu amoon ci Ben benn commission va xamante bu normal bu ñu institué ñun ci suñu jëmu bopp ñu ngi woon foofu. ak beneen commission boo xamante ni mu ngi nekkoon entre mairie ak dëkk ak ak kër maire bi ci ñaari ñaari boor yooyu am nay carte yu bari yu ñu jotu distribuer te ñun ñëpp yegg nañ ko dëkk bi yëpp yegg nañ ko te ñun ci suñu jëmu bopp bind nañu benn bataax envoyé ko préfet pour ñu mun ko wax ci situation boobu mais ba léegi tontuñu ci ñu def ci benn point de presse pour que ñu mun a yëgal askan wi lu xew Ourossogui gi mais ba léegi jotuñu ci lu leer ci ginnaaw loolu ñu convoqué suñu leader bi ak suñu plénipotentiaire mooy Samba Siré Dia ak Ousmane Sy ñu convoqué leen gendarmerie pour ñu déglu leen buñ fa demee dañuy tag ay le ay ay ay kii yu leer ay preuve yu leer que am na ay carte électeur ñu ngi koy distribuer ci ci biir dëkk bi te jaarul yoon jaarul ci commission bi mais ba léegi amuñ ci tontu bu leer loolu yëpp nag dañoo ne malhonnêteté la nee nañu élection yëpp tiitalaate ak xokkalaate moo fi nekkoon ci wurusoo gi su jógewul ci nguur gi ku fi toogoon ci moom la doon jóge pour ñu mun a euh, fitnaal waa wurusoo gi pour ñu mun a bañ a jóg dem voté ji mu nekk benn acte boo xamante ni bu leen moomal seen bopp ci li ñu constaté soo demee école kat am na ñoo xam maire ak nervi yam dañoo teg bunt bi pratiquement pendant demi heure te loolu dafa impact ci déroulement normal élection yi soo demee école de de 18 heures ba 20 maire dafa ñëw assiège bureau 4 te ba 20 ci kanam au service de l'ordre te ñoom ba léegi wax waxuñu ci dara nee nañu nag ci tënk lépp li ci war ñun dinañ ci taxaw lepp luñ ci war a dénoncer dinañ ko dénoncer te moom moo ne loolu waxuma ko ci pulaar waxuma ko ci français moom moo ne woon amul adversaire na xam ne tey la ñuy commencer le combat ne vient que commencer et il va nous trouver sur le chemin dinañu fekk ci yoon bi dinañu fekk ci yoon bi parce que wurusoo gi jaral nañu lu ne duñu nangu jamais quelqu'un kuy jaay wurusoo gi suy jaay wurusoo gi dinañu jaayaale ñun suñu jëm ba bopp loolu moo tax ma ñu ne de mun nala tax nga gañe mais jamais munoo gouverner ci njub at ci ci ci ci ci yoon loolu moo loolu la ñu amoon lu ñuy mun a partager ak yéen tey àll jaaraamoon jaaraam